asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah safallah safallah safallah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah wa ma la gis sànq nga def nii nii lu tax nga def ko waaw man de lii damay gis nit ñi buñ jullee pare ñu bëri ñu koy def man na xaw sax la lay jëriñ mais damay gis daal nit ñi di ko def déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim digle mooy heure bu nit ki jullee ba pare nadef subhanallah 33 fois allahu akbar 33 fois alhamdulillah 33 fois mu tëjee ko laa ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir lol la Mom la loolu dan def ay saxaabaam loolu lañ dan def ak nit ñu bax ñi ñëw ci ginnaawam tamit loolu lañ dan def te nit ki tamit war nga fexé lepp lo jaamoo yalla ga laccé naka la ko yonent sallallahu alayhi wasallam doon defé nak parce que mom lolo nekkon mission manam mu fexé ba jotali ñu jaamu yalla bi naka lañ koy defee ah man de xamee ma ko woon nii wax dëgg yàlla dama doon gis nit ñi di ko def rek baax na jërëjëf